bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal sama bàkkaar yi moytu leen di ma jooral aka baax waaju sell dem na te wóorul Rabbana mi makam talan duko jahal Duko mi makbulan banyu di masyallal Lima nyakkan bakhayna meskulu lalul Di masyallal walahi nyana madakkal Kuma tanyan damang jasad kusan jajjar Dila tuban tibalu bulma Lama khiram kita lalik kudilikul ومن يخذ رجلي مذك مخركل كسكل دمت منتر لو مكل دل باخت بطر يتفلي ما أنبل بنا فعلنا تتجل ملك جاهل سنبور دين من كنا قد الأجل نفي أوجل لمتدل نبول أنجل فنفن دفت من لأبد نجاحل bu ñu soññoon xalaat taxul ba nu yeesal sama teewaay ci dund kon bu nu yàggal bu ñu soññoon ba nu yeesal sama teewaay ci dund kon bu nu yàggal bu nu booloo ganaa bu jël nanu di xaar xanaa ku la géeyul nanu dooraat liggéey ba nu yàggal te ku faatoot la des ci moom di ko ñaanal jërë ngeen jëf kanaanu faw da ngeen jël vidéo yeeg yetaal di baaxal dina seeral yi teeg yeneen ya boobaa bu leen na di ñaanal jërë ngeen jëf kanaanu faw da ngeen jël vidéo yeeg yetaal di baaxal ديناصور لتاج يم أندل تبدو باب لن فات ديانا تبدو باب لن فات ديانا تبدو باب لن فات ديانا